ñu jël option jël suñu contact yi yóbbu leen ci hôtel. pour gën a mën a am suivi. parce que boo xal calculer ne benn contact mun na wàll cinq nit imaginel tey ñu ngi ci trois mille personnes yoo xam ne ñu ngi ci hôtel yi multiplier mille cinq cent yi par cinq on aurait aujourd'hui sept mille cinq cent cas je donne comme ça un chiffre hein sans trop ñu xalaat donc waroon na njëkk tey ci sept mille cinq cent cas loolu nga xam ne def nañu contact yi ci hôtel yi ñu jël ñi nga xam ne mooy cas positif yi seetu ñu ndax am na symptôme seetu ñu ndax amul symptôme mais bi ñu dawalee ba ci kanam ñu gis ne pratiquement les soixante dix pour cent les soixante dix pour cent de nos patients ñoom ñëpp asymptomatique lañ. oui te bu ñu leen traité soxlawul lu lu bari pour que ñu traité leen ñu génn dem ñibbi mais en ce moment da évaluer donc de réajuster que gestion épidémie c'est aussi une gestion une question d'efficience et loolu moo tax tey ñu évaluer jël suñu maladie yi nga xam ne ñooy asymptomatiques yi ñu leen hors de l'hôpital parce que l'hôpital on préfère les réserver pour les patients yi nga xam ne ils peuvent être susceptibles de am comorbidité mën nañu am âge boo xam ne ça dépasse cinquante stratégie boobu dañ ko réajuster c'est et je crois que il n'y a pas de mal à évaluer et à avancer il faut que ñu xaw positif tuuti il faut que ñu xam fi ñu bëgg a jëm il faut que ñu xam aussi que xeex bi ñun ñëpp dinañu ànd te ñun ñëpp dinañu ubbi suñu bët ubbi suñu genn euh, question d'inclusivité la il faut que ñu inclusif gis Euh, de intervention yi ma dégg pourquoi ma dugg. Mhm. c' est parce que intervention yi ma dégg sax dafay avancé loo réew mi ci wàllum xeex bi. bu mhm. waruñu rébarbatif bu ñu ragal gars yi ñu def ay remarques. Mm, mais bu ñu defee remarque mais ñu am au moins nous les arguments pour mm. échanger avec ces personnes. Mm. parce que li ñuy def dañoo convaincu que. peut-être yoon bu baax la mais. c'est toujours des choses yoo xam ne mun nañ koo améliorer te ci loolu vraiment maa leen di remercier bi daanale foofu di wax rek ne dañuy ànd ñun ñëpp dëkk bi suñu dëkk la bu tàkkee bu feebar bi tase fii ñi toog ci plateau bi ak man mii di wax ak yéen ñun ñëpp lay sonal donc juste avant de partir nañu nañu continuer ci disposition yooyu mm-hmm. am vraiment li ngeen di def nii des des des mm-hmm. ñu tamit ñu ubbeeku ni ñu koy defee ministère de la santé te maa ngi invité ñëpp ah. mm-hmm. man je crois que nous sommes tous ouverts au ministère de la santé ku fa ñëw indi contribution vraiment ñu déglu la waxtaan ak yow xool lan lañ ci jël. pour mën a maa ngi mais mais docteur balaa ngay dem mais on va en profiter balaa ngay dem benn wala ñaari question quand même ñàkkul euh, Aïcha ku wi njëkk posé mooy li li li. Euh, euh, Ali Boy Fall Boy waaw li Fall wax docteur Fall li mu wax ci mbirum transport transport nit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy personnel de santé bi est-ce que yéen a ngi koy jël en compte est-ce que nekk na loo xam ne efe comme ni nga ko waxee stratégie bi dafay évoluer est-ce que à partir de li ngeen dégg fii war na mën a réajuster ba nga xam ne personnel de santé bi dañ leen di protéger ba bu ñuy jógee seen kër di dem liggéeyi ñu nekk ci condition yu baax effet effectivement euh, Boubacar je crois que euh, université toogul rek indil ñu ay bus ñu jël ko mhm. c'est parce que dañu jël en compte la nécessité jël nit ñooñu di leen yóbbu mhm. loolu am na hôpital Fann am na hôpital Dalal Jàmm te euh, de plus en plus ñu ngi sentir nécessité pour épargner suñu personnel de santé ñu ngi sentir nécessité jéem a discuter ak Dakar de Dikk pour aller dans ce sens-là parce que euh, Boubacar gis nga des agents yuy liggéey sous cette pression-là mhm. liggéey ba benn heure war a ñibbi seen mhm. je crois que nous li ñu mën mooy toujours continuer di waxtaan ak ñoom pour utal leen solution mhm. te ñu ko commencé université mettre à notre disposition des bus ñuy louer ay bus pour yeneen yeneen yeneen secteurs yi ñu nekk ci santé bi peut-être ci yeneen direction yi centre d'appel yeeg yooyu noonu la ñuy xoolee solution boobu parce que solution boobu moi je crois que ça me paraît très très logique. Mhm. Allez, dernière question, Ali, docteur Aloyse. Ali Ali ça bien. bien. ñu ngi lay remercier di leen nuyu au passage. Mm-hmm. di di di saluer sa sa sa liggéey. donc ma amoon ay ñaay ñaay interpellation. Mm-hmm. parce que sànq tout à l'heure donc tu as parlé de sécurisation du personnel. sécurisation da nga wax. si nga wax wàllu sécurisation du personnel. te danga jël euh, focus bi. jëmee si wàllu matériel. te mm-hmm. te ñu xam ne. la sécurisation du personnel ce ne se limite pas au niveau seulement au niveau de l'hôpital de masque mm-hmm. te am nga benn aspect boo wax ne malade bi avant muy ñëw dañ koy testé indi ko mais c'est pas seulement ces malades il y a, il d'autres services néphrologie la maternité ça aussi ils sont en contact avec les malades c'est pas seulement ñi nekk ñu malade ñoom ñoo wax sol protection bi donc c'est un ensemble on doit sécuriser euh, l'hôpital mm. ñëpp am matériel de protection ça c'est mooy y a un autre aspect aussi parce que la fois passée wax ngeen ci wàllu euh, test yi ba IRSF dugg si. Hmm. mais lan ngeen di xaar si par rapport ak service bactériologie bu hôpital daan di xam ne yi mu am si matériel. Hmm. war na mën def 1000 tests par 1800 tests par jour. oui donc accompagnement boobu lan ngeen si xaar pour bactériologie boobu service bactériologie boobu démarrer dugg si test yi. Hmm. pour affaire bi gaaw beneen aspect bi nga xam dafay important actuellement que les hôpitaux le vivent actuellement. mais yaa ngi ko waxoon waaw mooy mooy. la situation financière que les hôpitaux vivent en ce moment xam naa ne xam nga ko. yaa ma gën mais. Euh, mais merci merci je pour terminer si benn question bi. Mm-hmm. affaire bi tamit nekk tamit au au au delà de ça les les les les hôpitaux. sama kii wax na ko sànq poste santé yi man bi wax ak yow en même temps CDS la président euh, euh, secrétaire général CDS la mais post yi amuñu dara amuñu benn si matériel population bi ñooy cotiser. dinañ dimbali si ay match wala ay gel affaire noonu mais amul benn doo gis ni mu ne dafa jóge district ñëw équipe ñëw def dotation jox ko poste santé amul donc loolu bëgg nañu question yi nga leeral surtout l' aspect la situation financière des hôpitaux. ah ayca bismillah docteur. waaw euh, je je te remercie je crois que euh, da nga commencé ci protection bi cité ay services. gis nga protection personnelle de santé. ci période bi ñu nekk dafa war bépp agent buy liggéey dans les structures de santé mais il faut ñu def la différence ki nekk dans un centre de traitement mënul bokk type de protection ak ki nga xam ne mu ngi ci beneen service ki nekk dans un centre de traitement tu sais euh, ki nekk centre de traitement sax bu solee équipement complet bi mënu ci def une heure te génnul simiko jëlaat pause mënul bokk ak ki nga xam ne mu ngi mel ni professeur kan mu ngi mel ni euh, docteur Aloyse mu nekk euh, euh, benn service quelconque de l'hôpital le type de protection mënul bokk maintenant mun nañu wax mun nañu wax parce que boo xoolee ci suñu boo xoolee li tax ma koy wax sax da ma ko j'aime bien di ko répéter boo xoolee ñi nekk suñu centre de traitement yi pratiquement ñu bari ket infecté wuñu mais ñiy infecté personnel bi dañuy nekk à d'autres niveaux comme urologie comme euh, les sages-femmes comme euh, les infirmiers chefs de poste parce que c'est des premiers c'est des contacts premiers contacts potentiels mmh. moo tax il est important que ñooñu ñu bañ leen laisser en rade je suis d'accord mais ce qu'il faut que les gens comprennent parce que parle aussi à des Sénégalais qui nous écoutent que les équipements de protection individuelle yi nga xam ne moom la ñu utiliser ci CTE yi c'est pas les mêmes qu'on doit utiliser pour les autres personnels maintenant il faut protéger tout le monde mm-hmm. mais il faut que cette protection là au-delà de l'hôpital puisse se poursuivre parce que c'est une question de prise en charge individuelle à partir du moment où agent bi di delluwaat dans sa communauté mm-hmm. bu ñu ñëwee ci wàllum laboratoire je crois que wax nga laboratoire ba wax nit lu ñuy xaar ci laboratoire euh, on, oh, on, oh, moi je crois que ce qu'il l'opportunité bi ñu war a saisir mooy que Covid mën a changer la face de nos hôpitaux aujourd'hui nous travaillons sur avec avec d'autres acteurs hein c'est pas seulement ministère de la santé parce que c'est de manière inclusive la ñu travaille autour d'un plan d'investissement le chef de l'État nous a dit nañu fexe ba bu ñu après Covid suñu hôpitaux yi ñu jéem leen mettre à niveau je crois que loolu yëpp dégg nañ ko et il y a un travail qui a été fait avec les universitaires avec les les médecins avec les syndicalistes les partenaires sociaux pour que ñu am mën a am un plan d'investissement maintenant la bataille ça va mooy nekk ñu mën a réaliser ce plan d'investissement buñ ko réaliser nous n'aurons plus dans des situations d'épidémie parce que loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg du ñu soxlaati ci ay situation d'épidémie ñuy amarré wu ci ñaari structure pour def le dépistage encore que il va falloir que ces structures là aussi ñu jaar ci processus homologation organisation mondiale de la santé et parce que loolu aussi c'est très très important donc l'objectif bi ñu am c'est de pouvoir au de là du Covid après le Covid. ñu mën a fexe ba suñu opi structure hospitalière yëpp xaw nekk à niveau parce que ya a des choses qui sont faites am na yoo xam ne ñu ngi koy def mais ça ne suffit pas ça n'a permettrul suñu structure yi ñu nekk à niveau donc ce plan d'investissement là war nañu fexe ba tey. bu ñu waxee Sénégal am nañu du ñu soxlaatee di jël suñu patients yi di leen jaabanteloo de de région à en région pour des questions de plateau technique loolu je crois que faut aussi ñu def ko un défi ça je crois dinañ ci dinañ ci yegg incha allah mais duñ ci yegg ñun rek ministère de la santé dinañ ci ànd ak ñëpp. Euh, am nga beneen question boo posé à part à part les état financier état financier hôpitaux yi euh, docteur. oui mais kooku kooku kooku c'est c'est notre c'est notre inquiétude. Fall Fall. état financier tey boo demee ci hôpitaux yi mais kenn ñëwatul. moo tax ñun si suñu communication boo ñu dégloo dañuy wax souvent ne buñ nañu éviter di transformer hôpitaux yëpp mu nekk ay hôpitaux prise en charge Covid parce que nit ñi ci seen ci seen ci seen ci euh, seen xel pour ñoom ku dugg hôpital boo xam ne dañ fay fajee malade Covid rek da dangay da ngay ñu wàll ça veut dire ñun à nos niveaux. Et au niveau de ces structures la il faut que ñu inverser la tendance par la communication loolu dafa am solo beneen bi mooy ñu bañ a jël suñu hôpitaux yëpp def ko ay centre de traitement Covid. loolu moo tax ñu ñu ñu ñu décentraliser prise en charge loolu bokk na aussi si li guidé le fait que ñuy def la prise en charge extra hospitalière pou que yeneen services yi yu mel ni cardiologie yu mel ni diabétologie yu mel ni cancérologie mën a continuer continuer parce que sénégalais yi yi nga xam ne dañu soxla woon prise en charge bu mel noonu ci service yooyu ñu mu mën a am prise en charge boobu parce que droit la pour ñoom te loolu il faut que ñu jël ko en contre dans ce contexte de Covid donc vraiment mhm. la situation bi nga xam ne on constate la client qui nekkuñ fi mais ça on on le voit e on est en train d'étudier des solutions pour ça Charles nga baal ma de euh, euh, balaa ngay poser sa question mais vraiment docteur en une minute sànq dama fi wax loo xam ni euh, les dix médecins yi ñu testé on l'a lu dans la presse